salaamaaleykum salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen joxaat seen wàccuwaay bu réwér di ñaan Sénégal yéen a fi jàmm yàgg di ñaan way daw li suñu borom yërëm leen taxaar leen seen bopp ba fi mu yem nag maa ngi a baax a baax yéen ñi si biir ñëpp fépp fu nekk rek maa ngi lay bëggee di lay ziar di jox sa wàccuwaay bu réwér te ñu ñëw fan benn baraak certifié xale certifié ndaanaan muy Diop 2 gannaaw ba mu bëree démb digganteem ak far bu jar te ñëw seet si ko Diop nuyu naa la. Idi ñoo lay fay di sant yàlla di julli Seydina Muhammad di sant suñu ñaari waajur xam nga di nuyu assistance bi fi toog ñëpp ku ci mel ne suñu grand zungule xam nga jël naa nuyoo yëpp teg ci loxoom ay ñoom grand zal xam nga moo limee damay juum ñëpp maa leen nuyu bu baax a baax di nuyu yëmbal tamit bu baax. Boy Diop 2 ñëw naa fi seet la. nga ne ma far bu jar dina bàyyi jël booy fan nga wékkoon loolu. waaw ah, far bu jar boo déggee moo xooloon ñoo nekk xale rek nekk ci ay loxo yu wóor xam nga ku ci mel ni suñu grand zungale dañuy liggéey loo mi midi soir lu méttee méttee métti xam nga suñu coach su morfal tamit xam nga bàyyi ñu benn yoon Saloum suñu grand di jàpp ci contact yi tamit bu baax a baax a baax waa yëmbal ma rek yëpp xam nga kon ñun faw rek lañ ko teg te dañoo nekk ay xale nekk nekk si yoon kon ñun far far bu jar war ñu ko war mën a teel moom lañ confirmer li ñuy ànd ak suñu mbokk loolu dong la. nga sa combat Fallou Dièr mu nekkoon sa ñaata combat. waaw mu newoon sama septième combat septième victoire. sept combat sept victoire. waaw sept combat laa def. ñu gis démb ci biir stade bi. dafa mel li nga waxoon da kaa def da nga noonu dafay neex yëpp yaa koy def. waaw man soo gisee sama combat yëpp stade bi moom dëgg fa yàlla yàlla suñ borom suturaal nañu heure bu ñëwee làmb nit ñi dinañu ràññee dinañ tuus lu neex dinañ dinañ fecci dinañ mobiliser dinañ bëre dinañ daan. loolu boo déggee moo xoo mooy maanaam ñun bu ñuy génn yëmbal ñëpp dañuy topp xam nga te yëmbal yabuñu leen naxuñu leen tamit heure bu ñu simee ko heure bu ñu simee nga xam ne Jóob doo woon di nelaw entraînement na amuma làmb muy simee rek ñu ne mu entraîné woo xam nga loolu moo tax boo gisee uniforme bu jër làmb ji lu fay neex yëpp ñoo koy def tamit dañoo liggéey nekk ay xale rek ànd ak suñuy grand xam nga loolu dong la. ginnaaw bi nga jugee si diggante sa diggante ak Far bu jër fi mu la yegg fi mu la yegg xel dal woon say supporters waaw xam nga supporter dafa métti supporter moo gën a métti bëre. man mi man mi man mi noonu laa mel man ba may supporter mbër dara du laal man mënu ma yóbbu mbër sax di ko caméra waaw parce que chaque jour rek taxawaayu supporter moo gën a métti mbër mi bëre man loolu dal na sama xel parce que bu dul dara man mbër dama ko fooyee mun naa ko trop yow mi amoon samay mbapat yoo arbitré ñoo xamante ni heure bu ñu nee heure bu ñu nee dañ may heure bu ñu ma jàppee mu jeex ci ay 15 secondes ay 30 secondes laa leen daan sa kanam lam mbapat moom mujjee bëre esaan njaaram arbitre nga ko voilà gis nga xeetu bëre bu ma fa bëre kon man bëre mënu maa jaaxal man bépp bëre ak noo ñëwee ak noo bëree rek man mun naa bëre yow bu gaawee mën naa bëre yow bu yeexee mën naa bëre yow bu diibee mën naa bëre ak yow xool li ko bàyyi lépp mu dem ba jeex nga yor sa loxo waaw loolu xel mu dal liggéey bu doy mën a bëre ak mu dal gis nga mbër loo mën a bëre mën a bëre te sa xel dalul si géew chaque jour da ngay juum man damaa mën a bëri pur sama xel day dal si làmb ku ma mën a bëreel sama xel day dal xam nga fi ma egg noonu làmbu la waaw ah, parce que dama dama damaa si jàpp bi bi ma cherché jàpp sama loxo gos jàpp moom tànk tànk duraatam bi da koo raaj si ginnaaw pour bañ a ma jàpp ngemb li boo gisee ma jàpp sama ginnaaw loxo si derrière bi noonu bàyyi ko làmb ji dama ko ibbi man maa ko def noonu. parce que man xam naa ne Farou Jar làmb ji amul lenn lenn lenn lenn lenn lenn lu mu mën a jaay bëri du ci xeex du ci bëri du ci xeex du ci bëree bi ma ko bàyyee ba mu jàll quoi bi mu jàllee ma déclenché ko mbot ndaanaan bërekat la ma déclenché ko mbot mu teggi tànkam sama tànk bi romb mu jël sama loxo droite bi caxabal la mu damaa bëggoon tourner pour caxabal ma quoi ma jël sama loxo droite bi taf ko si zone nga xam ne tànk bi heure bu ñëwee mun du mën a egg si man léegi bi ma ko defee noonu mu dawaat dama tànte pour dama yokk pour baraake sama loxo bi waaw bi ma bi ma ko gisee muy baraake sama épaule bi di ñëw rek ci laa xam ne tànk mi jege na ma ma kal ko tuuti bi ma ko kalee taxaw tuuti doo koo coral mu doo ko daanu. nañ naani kafe. moom bu su bañoon maa moom ba ci ba ci naa woo am naa woo liggéey naa woo. bañoon yàgg moom ba ci reportage ba kay te du ma sonn du ma bàyyi. loolu day mujjee rek moo tax mu bàyyi moo mu teel a bàyyi foofu ci première saako day bàyyi rek force la. ginnaaw bi nga jugee si far bu jar muy démb tey nga ñëw dallu Diop fan la jëm. ah Boy Diop tëkkuwul benn mbër Boy Diop instant bi mi ngi nekk si ruukam xam nga di entraînement ñi nga xamante ne ñoom la ma làmb booleel nag bu jaadoo xam nga samay staff doofuñu jën jàpp leen xam nañ combat yi war a bëre ak ak ñu war a bëre mais instant rek laa mën a wax teg si loxo amateur maanaam instant bi grand combat rek laay bëre loolu moom sañ naa koo wax. grand combat rek laay bëre te ku te ku gis démb ni ma def bi xam ni su ma nee grand combat laay bëre jaadu na. ku bañ ak ku nangu jaadu na parce que am na mbër yu bëree grand combat ay cinq combat lañuy am ay trois combat bëri bëri grand combat fii bëri na fi li may mobiliser duñ ko mobiliser ñi may topp duñ leen topp man làmb amatuma instant bii sama benn morom boo xamante ne rek bokk nañ génération ma bàyyi la si xel amul waaw dëgg moo neex yàlla ku dee ak sa bàmmeel amul ku ma siy bàyyi xel. da nga ne grand combat nga jëm fi mu toll nii. waaw si si biir grand combat yi am na ñoo xam ne da nga naan ñii samay naataangoo leen wala ñii nañ ma may chance. non instant bii nii koo ni ci nii samay adversaire lañ wala ñii samay garaan da ngay bëgg ñi ñii bëgg ñee loolu moo soof ci làmb ji mais instant maa ngi toog di déglu adversaire bi ñu ma proposé boo xamante ne war nañ mën a bëre dinaa la waat ba fii ñu waxtaana làmb jooju incha allahu rabbi mais instant yi moom du mën la kii du mën la kaa am xale ne yéen ñaar da ngeen yekkoon si yoon bi yàgg bëggante nga bëggoon ko mu bëggoon la dem ba si biir mu daan dem nga daan dem muy Franc ah kooku dama wax moom dama wax si moom quoi waaw da ñemewul wala non du ay cadre dama ko ñemewul moom su ma ko ñemee xam ne su ma ko ñemewul xam ne mais dafa loolu maanaam. moom dama kaa seeti. mu ne ma boo yooyu dama leen bàyyi si ginnaaw dama leen a daw. yéen yëpp da boo jóob yëpp da leen a mais moom bu waxee daf maa raw daa wax ko neex rek man laa moom maa ko ëpp ay victoire xam nga maa ko mbooloo. waaw day mobiliser. lépp lu laamu di laaj maa ko ëpp kon moom jarul may wax si moom quoi parce su may wax si moom day nuru leneen lépp lu laamu di laaj rek maa ko ëpp lépp lépp lépp. fan nga wékk ne lépp lu laamu di laaj yaa ko ëppale faral. bokkul te ni ko rek boo jëloon dem laaj amateur ku ne nga ko diw lii ñoom ñooy tontu seen bopp pa man may wax kaw amul dara lu ma toll ak moom. ci làmb tey promoteur seet si diggante ak Franc pare. non bëree la. moom moo toog ni bëggul bëre man nest ko dégg nañu wax dëgg moom moo ni Diop de moom moo wax moo tax mooy man bëgguma bëre ak Franc. yaakaar ne est nekkul loo xam ne da koy dox si xel mi nii rek sa xel nii. ah moom la rek de Diop de ànd waalaal mi ngi si lim ni war a nekk di ci nekk moom moo toog ni bëggul bëre ak man ku bëggul bëre ak man nooy toogee tamit nooy ñëwaatee ni ko damaa bëgg bëre ak loolu day a bëre ma làmb booleel ku dul waa yëmbal damay bëre ak yow su neexee yàlla suñu borom ku làmb booleel ku dul waa yëmbal moom fi ëpp ay adversaire avant sa combat bii da ngeen doon bëree demi final final am na combat te yow bërewaat nga fi waaw loolu ba tey waaw man instant bii nii mun naa ne mun naa ne man sama combat jeex na si jàmm waaw comme ñoom comme ñoom ñi nga xam ñoo dese ñoo dese ñoo dese ay combat ki la meilleur gagne làmb la rek abara tamit xam nga ñun ñu ngi fi pour mbër yëpp daal waaw bu ñu seetsee fa ñu xaalis bu ko jar ak adversaire bu positif ñu bëri ak moom. yaa ngi fi pour mbër yëpp waaye am na mbër yoo xam ne dañ boo joo xam ne ñii samay naataangoo lañ. mais man ñaari yoon laa toog fii ni bëgg naa diw naa diw bëgg moo amatuma temps. waaw fi ñu léegi nag moo tax kon xam nga ba may toog naan bëgg naa diw bëgg naa diw ñooñu est-ce que bëri nañu ak man xam nga bëri ñu ak man léegi nii nii nii nii du ma ci wax kenn kaa ñu bëre xam na du ma ci wax kenn kaa ñu bëre yàgg naa fee toog di lim ay mbër pour ñu bëre nanga woo ñoo bëre ak man kon moo fi nekkaat di lim damay sonal sa bopp ñi nga xamante ni bëgg nañ bëri ak Diop 2 xam nga mu nekk làmb joo xamante ni amateur bëgg nañ ko askanu làmb bëgg nañ ko man pare naa pour bëre ak yow buñ ma fayee. mu am lu ma la bëgg a laaj lu ndaw rek Diop 2 sept combats sept tey jii buñ la doon laaj ban génération nga bokk fan nga fan nga dugal sa bopp. man nii génération mu bokk maa si booñaa Balla Gaye génération laa bokk instant bi de. ay booñaa yi Balla Gaye fa laa toll nii dañuy mobiliser may mobiliser dañuy làmb may làmb fa laa toll. soo ñu ne foo toll say morom ñoo tax ñuy wax. waaw ah, ñooñu samay morom. waaw Diop fan la ñu nekk moom Diop tamit. non samay morom lañ ay booñaa yi Balla Gaye samay morom lañ. yow sa turandoo sax ñooñu nekkuñu morom. non samay morom lañ sa turandoo mais ñooñu samay morom lañ sama turandoo nga wax sama turandoo nga wax mais ñooñu samay morom lañ waaw parce si làmb lañ nekk mu ne ci làmb nest am naa droit am wax lool am naa droit wax lool de samay morom lañ dëgg fa yàlla. xanaa dafa am lu ñu la ba tax nga jël sa bët wekk ko si ñooñu. ah wala mag lim moo tax. non du mag lim daanu mag moo loolu mag sama moom dama ko bëgg te yàlla tax mag moom dama dara waaw xanaa décourage ak laa wax ma dara waaw mais instant moo dëgg fa yàlla fa laa toll niveau boobu laa toll de waaw. bii nii nga jugee si. fi ñu toll nii parce que mbër mu ndaw na jàppale combat bi Diop amoon jàppale à 100%. bi jàppale am naa ko boo déggee jàppale am naa ko si mooy samay nit waaw ah, ku ma xam-xam maag samay nit xam nga ñu may guddil di ma bëjëgal mais jàppale bi tax ñu naan jàppale mooy autorité yëmbal yi nga xam ñoo ñu war a génn di ñu teg loxo ñoo ñu gisuñu leen. yëmbal damay autorité. amul amul autorité de. Ah, amul sax maire. yëmbal musale maire sax amu fi. soo déggee ma laaj loolu damaa yàgg dégg ay mbëri dëkk yëmbal benn baraak Malika koo wax mooy la man dama am problème mu jàppale samay laaj ndax yëmbal am na ay autorité man loolu laay laaj. autorité yi daal grand boy jee laa xam mu ngi si teg loxo te du te du dara mais yëmbal fi mu toll nii nii amul maire suñu sportif yi grand soirée waaw au tamit da siy jàpp ndeysaan suñu grand bu baax la. waaw laa laa mu jàpp na si bu baax a baax a baax mais nga xam ñi nga xamante ni. ñoo yor ndombal tàng ñu ne ñoom ñoo représenté yëmbal fii nekk suñu monsieur le maire yëmbal man gëm naa ne amul monsieur le maire tey ël amul amul monsieur le maire ëllëg ñu nga ñun mënuñu di am làmb di défendre couleur yu yëmbal chaque jour xam nga ñuy jël suñu xaalis di ko may ñenn ñi di bàyyi ñenn ñi xam nga ñun. kon dañu may ñenn ñi bàyyi ñenn ñi. nawetaan lay jox ay millions di lañ jox ay trois cent mille ñun igri yi ñoo jox te xaalis boobu nekk foofu noonu ñun dañ see am pas de responsabilité mbër yi igri yi dañ fa war am dañ fa am xaalis ñuy handball dañ fa am xaalis ñuy basket dañ fa am xaalis nawetaan dañ fa am xaalis pourquoi ñu jox ñenn ñi di bàyyi ñenn ñi. loolu mooy bu maire nee yaay monsieur le maire bi yow pourquoi ngay def loolu ñu dañ la woo si fair-play ba sonn woon la si ñaan la te yàlla tax ba tàyyi xam nga ñun boo ñu mënul jàppale ñun ñu ngi góorgóorlu di jàppale suñu bopp mais damay dama lay lancer benn message bis boo demee ba soxla ñu del sóoraale loolu parce que bu élection jotee wala dara jot ñun mbëri ñoo leen di jàppale ñoo leen di votel ñoo leen di guddal ñoo leen di bëccëgal ñoo leen di sécurité ñoo leen def lépp te ñun dañoo am famille dañoo am yaay dañoo am ay papa dañ leen a bëgg a teral xam nga mënuñ ñun mënuñu ñun buñ soxlaa ngeen bañ yéen boo leen soxlaa ñun ñuy nangu loolu mënul ne ñun ay doomu aadama lañ ay bañkat lañ ay jàmbaar lañ dañoo bëgg bu ñu amatee làmb ngeen si jàpp xam nga dañ leen a woo si fair play ñaan leen ba tàyyi xam nga faale woo leen ñu kon xëy moo tax ma defee nii tey tey ni laay defee xam nga pour ngeen dimbali ñu teg ñu loxo ñun ay doomu yëmbal lañ kenn mënuñoo génne si doomu yëmbal lu mu gudd gudd yëmbal la ñuy fanaan kon boo la nga nekk monsieur le a teg loxo ñun ñun dinañ dem wuti ñeneen ñu la mënee muñal muñalee ñu noonu dégg nga bis la mënuñoo ñëw comme autorités yi nga xam ne dañoo nekk si gox bi xale yi ay xale lañ ñoo xam ne sport la ñuy dund muy muy làmb bu dul boo jóob di keneen ak keneen war nga leen mën a geesu si lu bëree baree baree bëri bëri ndax bëri nañu fi nekk ñoo xam ne du autorité du ñu dara comme ki mu wax léegi soirée ak keneen ki ñëpp dañ koy jàppale waaw keneen ki moom mooy loolu Diop sa kàddu gu mujj waaw sama kàddu gu mujj xanaa di sant ñi ma jàppale si làmb ji baax baax baax baax baax ñi ma sant ñi ma ñi ma ñi ma jàppale ci laamu ji maa ngi leen di sant di leen gërëm grand Zoungale mention spéciale làmb ji ku ne xam na may la doole may la xaalis international bi chaque jour dama koy wax xam nga làmb ji amul lu si dajul guddil nañu si bëjëgal nañu si bàyyi saal doo ma bàyyi ma mu ngi nii xam nga barki alxuraan karim amul lu si dajul sonn si bay bëgg a dee moo tax ma ne ndam rek laa ko mën a fayee ah te yàlla suñu borom suturaal nañu may nañu ndam te tànk yi te maanaam fi ñu teg suñu tànk nii barki alxuraan karim mi ngi ko bàyyiwul moom dina am champion parce que dañuy teg ay coono yu métti si ay entraînement mbër day jóge fu nekk di ñëw si moom mu ngi nii barki alxuraan du mbaam wax leneen lu dëgg mbër fu nekk di ñëw si moom di entraîné si xam kon loolu rek yombul kon man fierté yëmbal la moom moom zungale fierté yëmbal la xam nga billaay walaay taala di nuyu waale ñaari soxnaam xayta fili maa ngi leen di siyaare baax baax baax baax gis naa seen taxawaay si làmb ji xam nga di nuyu mafia José mafia José xam nga daa di ñoom mafia jàpp si ma ay kaar barki yàlla ma fi yaa ku ci daw bi ma fi yaa 37 daara ji xam nga waa daara ji taalibe yi bàyyiwuma kenn kenn kenn xam nga ay Kara Thierno Jaay sa mbaam xam nga Aliou Badou Ibou taalibe daara ji fépp fépp fépp taalibe nekk rek sant naa la si làmb ji gërëm naa la bu baax ma fi yaa gétt gi di jël nuyoo bi di ko teg si loxoy Fallou Boxeur waaw Fallou Boxeur nuyoo maa ngay teg si loxo ma fi yaa gétt gi ñoom baara xam nga ku ci mel ku ci mel ni Baye borom taraay sam waajaay ni borom taraayaay nii noo la demee borom soow mi magu doomu dëgg bi <laughs> magu doomu dëgg bi tamit gis naa taxawaayam si làmb ji musa kalaamu borom manko xam nga di siyaar waa mafia manko bi waa yëmbal gi yëpp amu seen fay xam nga gannaaw kàddu gi gis naa taxawaayam si làmb ji Seydou Kanté gannaaw lëz gis naa gis naa seen taxawaay si làmb ji gannaaw taxaa maa ngi koy sant di ko gërëm borom maris xam di sant alkaati yëmbal yi tamit xam nga dañuy defar tiset di ñëw sama làmb te loolu yombul xam nga parce que xam Mouhamed ku ci mel ni Moussa ku ci mel ni ku ci mel ni ah, ku ci mel ni kalaamu xam nga Moussa gis naa taxawaay bi Moussa kalaamu gis naa taxawaay bi ñoom Mbaye Guèye ñëpp maa leen sand sant baax baax baax baax bu leen neexoon ba leen seen fekk xam nga commissaire yëmbal bi tamit xam nga ñu ngi koy siyaar baax baax parce que nit bu la defalee teraanga boo teewee da nga koy wax waaw nit moom bu la defalee teraanga waxoo ko rek buy lim ay noonam na la ci boole xa nga baara leen waan sama waa ji doom yaay Sidi Diop maa ngi koy siyaar bu baax a baax grand Ndiassé nuyu sama mbokk ñàmbur ñàmbur yi nag ñëpp xam nga dem gis naa nañ ma taxawoo si làmb ji barke alxuraan karim cet ba cet di nuyu waa Louga Paxa Ngij Fall xam nga waa Ndiéy maa leen nuyu tamit loo yee nii xaali di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom maa ngi nuyu sama waa dëkk waa Ngij Fall maa leen nuyu baax a baax a baax xam nga Aline tamit maa ngi koy bëgg bu baax démb daa tiit ba xëb ma lem la ma xëb si kanam lem lem. mbër mbër muy bëri nga xëpp ko lem si kenam na la war a def Aliou Demba nelaw nga ba loolu nga yaan xam nga di nuyu sama coach Mor Fall sama turandoo Boy Diop tamit aw ma fayam aw ma fayam Omar Omar borom dëgg bi maa koy siyaar baax Omar Talibe tamit day jàpp si làmb ji xam nga di nuyu sama grand papa borom Fadja maa koy nuyu bu baax a baax a di nuyu waa waa Fadja ma fi yaa Fadja bi ñëpp démb dañoo def teew xam nga ñëw dooleel ma xam nga jàppale ma jàppale seen rakk maa ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu grand Piso ay ñoom mbay xam nga gars ngi leen nuyu grand Talla Diop maa ngi koy nuyu tamit jàpp na si làmb ji xam nga kaddu gi tool doo ñun ñëpp dañoo jàpp si làmb ji xam nga mooma Samb damay sargal le 15 janvier idi bëgg na ngeen tew ñu waxtaane ko non le sa safara le 12 le 12 janvier bëgg naa ngeen teew foofu noonu benn baraak fii la xam nga grand mooma naar tamit maa ngi koy maa ngi koy siyaare baax baax baax Kanté Kanté Kanté maa ngi koy sant bu baax a baax xam nga ak moo Samb Baye Mbaye Feeraay nag aw ma sa fay laa mujj ay ticket yu bëri la jënd may ko booy ñu def esaat te ñun Baye Mbaye ñun suñu fierté la parce que ñun bu ñu amee combat mu jënd ay ticket rek di ko maye kon kooku mu ngi ñuy teg loxo maa ngi koy sant di sant fili fili taale bi sëñ saali bi mook abi mu ndaw gis naa taxawaayam si làmb ji sant naa ko baax a baax waa Manko waa Aseg naam ñoom laay ñuule ñoom Aatu Maan xam nga grand tamit jàpp na si làmb ji Cheikh Mbacke xam nga maa ngi ma fi yaa moto yi ma fi yaa moto yi nag chaque jour ñu kaas maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm ko fa moto yi gis naa ko ku si mel ni Aya Fall day sonn samay làmb da siy jàpp Aya Fall aw ma aw ma sa fay aw sa fay maa ngi lay sant bu baax a baax a baax gis naa nu may taxawoo biir ak biti barki Serigne Bamba Mbacke ak sa ak sa lonko yaama yaama dafa def déplacement def dérangement jóge ba Guédiawaye ñëw dooleel ma maa ngi koy san xam nga di sant sama maam Passoumane Guèye maa ngi koy sant. Sofi Ndour gis naa nu ma taxaw ma nga ma xaalis bëri si làmb ji Sofi doom yaay Thiat doom yaay Faat Fay kontaan naa bu baax buur sama waa ji Serigne Thiat maa ngi koy sant bu baax gis naa ma taxawoo si làmb ji maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm xam nga jaakaraw nag Serigne Ndoumbe maa ngi koy sant Cheikh Ndiol sama waa ji Abdou Kafe gi xam nga ma fiyaa Kafe gi Kabbu Baara dama ñooñ dañuy jàpp samay làmb quoi barke naa Mohamed bu ma limee rek damay juum ku ci mel ni Zo Ndaama xam nga mbay ndaam dama yaay sungule maa ngi koy sant ceer bu xees sama pël bi sama pël bi sama pël bi dafa jàpp si laamuñ moom tamit xam nga di sant sama yaay bu baax a baax a baax di sant sama yaay aw ma fayam aw ma fayam barki alxuraani karim démb laamu ji li mu def si xaas mun ma wax lu mu toll mais bis bee toll ni noonu rek ah nit moom ni nga ye ku nekk ak ku nekk ak ni du ko jikko toll ak moom ngor ñooñu nga mën a àndal mais ñi may àndal barki yàlla sant nañ ko gërëm nañ ko du man kese maa ko sant xam nga kon loolu dafa rafet te maa ngi koy ñaanal gudd fan wér ak wér la ki sama tànda ji kooku aw ma foyam tiset bi mosol léegi la ma ko jox nee na kado la ko def si làmb ji tiset bi mosol billaahi wëli kooku ma may toogal añ ma may toogal reer aw sa fay ceeb yaa ko dàq ci Sénégal ak li ko wër barki sëñ Ba moo jooyee ma jabar wutu ma sax jabar barki sëñ Ba ma kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax a baax a di nuyu sama nijaay Moussa lamb dafa jógee fi ba Casamance ndax làmb ji maa ngi koy nuyu di nuyu sëñ Bas nan ko ñaanee gis nañ ko waa Touba ñu ngi leen nuyu baax baax waa Kabongo Ismaïla xam nga waa Canaba xam nga di sant képp koo nga xamante rek jàpp nga ci combat Diop 2 mbës taaliba Bamba mon ami gis nañ taxawoo si làmb ji bu baax baax baax baax barke yàlla mbës aw ma sa kontaan naa trop caatu baay paate sama grand sama idole caatu baay paate xam nga non loolu du ancien gloire caat maa ngi lay siyaare bu baax a baax di kontaan si yow mbës taaliba Bamba jibi bamba ngaala borom dubaay ngaala borom dubaay gaana xaas bëri la may si làmb ji borom dubaay maa ngi koy sant tamit di ko gërëm naa nag li la dal métti na mais muñal muñal danoo may benn booyam quoi mais muñal rek yàlla baax na <laughs> yàlla baax na bel séeri fat baaji tamit ba bel séeri fat baaji waa 205 waa 205 taxaw nañ ma si làmb ji gis naa message yi gis naa appel yi xam nga ñëw nañ ñëwal nañ ma sant naa leen gërëm naa leen bu baax a baax a baax a baax bàcc borom dafa jàpp dafa jàpp ci làmb ji doo sama njaago bi maa ngi koy siyaar bu baax baa baax a baax ko làmb ji nag gis nañ lépp lu mu ci def mais amuñu sa fay waaw yàlla am sa fay yàlla na la yàlla fay kontaan nañ ba waa marché Thiaro yi maire Soda maire Soda Ndiaye ñu ngi koy sant bu baa a di ko gërëm dafa may sama yaay ay ndugg ay perseeg lu ne may na ko ci làmb ji xam nga waa marché Thiaro yi waa marché Thiaro gi yëpp cet ba cet képp kuy jaay ndugg maa ngi lay nuyu di la sant di jël nuyu bi di ko teg ci loxo maire Soda xam nga di nuyu nag sama benn gara sama grand sama xarit muy Momo Lamine sama grand sama xarit ko aw ma fayam chaque jour conseil yu mooy wo xam nga di ma conseil di ma defal lépp maa ngi koy sant di ko gërëm si sa ngoon taa maanaam xaalis bëri nag si laamu ji xaalis ma doon wax jotagu ma si. wa na ma ko waaw tey bi ma yeewoo ci laa ndékki wéef ko. fii laa ko waxee woon fii laa ko leeraawaat. mbër mi mbër mi neexoo gaan maa ngi koy barke yàlla maa ngi koy sant bu baax a gërëm si sa ngoonu taa may ma xaalis bëri ci laamu ji. mbër mi mbër mi ah mbër mi ah mbër mi kontaan naa kontaan naa. non ñoo ko bokk ñoo ko bokk mbër. mais naka tànk bi mu ngi tane. waaw mooy tane mooy tane waaw mooy tane mais nag instant boo jóob der bi nee sa tànk dara ne aussi. mbër mbër mbër boo ñëwee barkaal démb loolu wax de démb loolu wax. ah non non non non mbër mbër non mbër eh Diop échange eh, changé na de Diop changé na. <laughs> waaye non non mbër mbër eh loolu ma ko nangu de <laughs> mbër coupé na. <laughs> lii Ama lu mu la wax Ama yàq sa derbi de Ama ne géwélu kot sóori waaw ah, léegi nag loolu mbéjum kanam borom ma koy fajal boppam boo ñëwee fii lijjanti loolu sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp du nuyu waa Jaxaay sama grand Lamine waa 11B maa ngi leen nuyu baax baax baax baax Géejawaay tamit maa ngi leen nuyu waa Géejawaay cat boo sama kër papa nuyu naa ñëpp siyaar naa ñëpp waa Caaroy waa quartier Omar Dia nuyu naa ñëpp siyaar naa ñëpp bëgg naa ñëpp assistance bi ñu toog ñëpp Ndiaase xaali sama boy Modou Cheikh Messi sama sama pro bi mu ngi nii pro nag incha allah rabi léegi léegi nuyu naa ñëpp gërëm naa ñëpp Iri merci. benn question la bëgg a laaj boo jub de. waaw jëlal miir bi miir bi. miir bi laa nga jëlal moo miir baa indi miir bi moom miir fii la fii fii la. ñi fi nekk mais miir bi maa sëgg fee di jël si yaari. si miir bi Birane maa ngi fanaan gars yi fanaan nañu fi. maa ngi fanaan Iri non Iri mooy loolu la. <laughs> di la bëggeewaat bu baax a baax boo jub di la joxaat wàcc waaye bu di bëggeewaat jungale ni nga koy waxee rek may la doole may la xaalis di ziar bu baax a di bëggee nag kenn si man suma xarit suma lépp buur géwal séeri cat waaye di bëggee suma jigéenu bopp yaay faal tik tik Sofia bëggee naa la bu baax a baax ziar la jox la sa waaye ba fili jëlal lépp yaay boroom yow xam nga man xam naa yàlla na yaa defal jàmm defal ko sa boroom kër xalil doxal ñu dem